المعلق ما أول الإسناد منه يطلق ولو إلى آخره معلق وفي الصحيح ذا كثير فالذي أتي به بصيغة الجزم خذي صحته عن المضاف عنه وغيره ضعف ولا توهنه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 المعلق بن لا تي خيتي خم خم ييغا خامتاني نيوم نيو اديو تي حديث يننت بي صلى الله عليه وسلم ا آه، معلق موي حديث بو خامني كوم نيم كوي واخه موي ما اول الاسناد منه يطلق ولو الى اخره معلق maa mooy bépp xadis boo xamante ne awwalul isnaadi njaal beenu càllale gi minhu ci moom xadis boobu yutlaqu dañ ko boyal maanaam dañ ko boyal kenn tudd ko walaw doonte ilaa axirihi ba ca mujjantal ga la ba ci bu doon sax waa ji day taxaw tuddul kenn kenn ci càllale ji ba ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam rek mu doog a wax yenent bi sallallahu alayhi wasallam daa di wax la mu wax loolu muallaqu loolu lañ naan muallaq dégg nga bépp xadis boo xamante ne njaalbeenu càllale gi maanaam yow li ko dalee ci nit kii bit kii wax càllale xadis bi wala kii bind téereem càllale di indi indi war a indi càllale gi tuddul début wu càllale gi waaye dafa dem ba ci biir moo xam benn nit la tëb wala ñaar wala ñett wala boog dafa dem sax ba ca fin ba mu ne moo tax mu ne walaw ila axiri yi ba ca njombatal ga loolu lañ wax muallaq wa fi saxeex boo demee ci saxeex bi muy saxeex imam al buxaari rahimahullah za muallaq yii nag lii kasiirun lu bari la ci saxeex imam al buxaari lu mel nii lu ci bari la dinañ ci ñëw incha allah de toute façon gisoon nañ ko bi ñu tollee ci euh, bi ñuy wax euh, آه، وعدة الأول بالتحرير ألفان والربع بلا تكرير ومسلم أربعة الآلاف وفيهما تكرار جما وافي آه، وفاتلكو فوفو وفاتلكو فوفو جسون ننكو غلا منكن فالذي وفي الصحيح ذا كثير فالذي أتي به بصيغة الجزم خذي صحته عن المضاف عنه wa ghayruhu da'if wala tuhinhu kon wa fi saxee ba dem sax Buxaari za lu mel nii maanaam lii maanaam mooy allaq kasiirun lu ci bari la fallazi bépp xadis boo xamante ne nag muallaq la uti te ñu dikkee ko bii ci moom xadis boobu bi siixatil jazmi ci siixa meloog al jazm ak dogu bu fekkente ni ñu waxe hadith bi imam al buxaari rahimahullah masalan dafa ne qala neena dani qala zuhri imam az-zuhri neena wala qala umar ibn abd al aziz radiyallahu anhu comme ni nga xamne non lañ ko gisse deng nga mu ne bi sixatil jazmi kon moy lol moy neena manam mu dogu ci ne diw mo wax lolou dinañ ci ñëw inshallah Euh, ak euh, façon yi xus yi loolu jàppal sixatahu ak wéram anil mudaafi tukkee ci ki nga xamante ne mooy kañu askanale an huwalif ko kañu askanale mbir mi jëlal ne jàppal ne dafa xadis bi wér ci moom wér na ba ca kooka en tout cas bu imaam Buxaari raxmalaa rek ne qaala diw wala zakara diw wala xakaa diw wala rawaa daa di wax yooyu baat yu mel noonu xamal ne xadis bu wér na wa xayrahu lu dul loolu nag beneen xadis bu melul noonu boo xamante ne dafa ñëw wax la mais siixatu tamrid la jëfandikoo maanaam beneen façon parce que ñaari siixa ñoom ñaari façon siixatul jazm ak siixatu tamrid mooy loo xam ne nee nañ ah wax nañu de nee na nee nañ diw nee na wala yu mel noonu daif jàppal ne xadis boobu wérul daif wala tuuxinu waaye nag bul ko doye dal doye dal gu ëpp maanaam bul jàpp ne bi daal daif lool daif jiddan déedéet te loolu dinañ ci ñëw incha allah wama aza lépp loo xam ne nag askane la ko moom imam al buxaari rahimahullah li cheikh ñeel sëriñam bi qaala ci ne qaala nee na fa fil asax ci li gën a wér nag ci waxu borom xam-xam yi rahmatullah alayhim uxkum wéral àtteel lahoo ñeel xadis boobu ittisaala ak jokko imaam al-Buxaari rahimahullah bu waxee ab sëriñam moom koo xam ne moom sëriñam la moom mu ne sama sëriñ bi diw de nee na te waxul ni dégg naa ci moom wala nettali nañu wala et cetera maanaam yooyu ñuy daan faral di wax sami'tu xaddasana axbarana amba'ana ak yu mel noonu waxul loolu li wax rek mooy nee na nee na diw nee na fa fil asaxi kon ci li gën a wér uxkum àttil loxo ñeel xadis boobu ittisaala ak jokkaloo nga ni loolu mooy bu imaam al Buxaari raxmallaa nga ne waaw nga ni waa keneen nag mu ne la wama laxaa waaye ñeelut ko la daa si waxu faf keneen ku dul imaam al Buxaari daabitul ab lu koy tënk régal régal boo xam ne dañuy xam ne lii lañ koy tënkee fataaratan léeg-léeg waslun mu nekk ak jokk wa uxra léeg-léeg maanaam ci beneen wàll gi saaqitu mu nekk loo xam ne dafa rot maanaam ne am na ku rot ci diggante bi euh, kon lii moom mooy li nga xamante ne moo aju ci li nga xam ne moom lañuy wax al muallaq mooy fukkeel ak ñaar ci xam xeeti xam-xamu hadith yi nga xamantene mom lañu jàng mom lañu jàng te mom moy nga xamantene képp ku bëgg am xam-xamu hadith la budda nga xam leen maîtriser leen yàlla nañ ci yàlla boole yàlla nañ ci yàlla jàppale ci barke xabibi Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al muallaq buñ nee alaqa ci arab alaqa cheyu bi chey maanaam mooy nangam takke nañ ko nangam nangam takke nañ ko nangam maanaam téye nañ ko ko waaye buñ nee alaqa alaqa a bi chey nangam maanaam alaqa mooy téye nañ ko téye nañ ko nangam nangam téye nañ ko nangam buñ nee alaqa mooy takke na ko yeewe na ko ko da koo def mooy jaalahu muallaqan mu daf koo def mu nekk lu ñu yeew lu ñu téye waaye euh, ci istilaaxu borom xam-xam xadiis yi rahmatullah maanaam mooy comme liñ la wax mooy lépp loo xamante ne njaal beenu càllale gi dañ ko dañ ko xasaf dañ ko dindi moo xam benn début bi la moo xam benn nit rek la benn raaw yi kese la wala bokk الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى في علم الحديث مقدمة مقدمة مقدمة ابن الصلاح رحمه الله دفني وكأن هذا التعليق مأخوذ من تعليق الجدار وتعليق الطلاق ونحوه lima yashtariku ljamiu fihi min qata al ittisal mu ne dafa mel ni taaliq bii euh, ñu ngi ko jële ci taaliqul jidaar maanaam boo jëlee euh, euh, ab mur nga maanaam ab sàkket nga daj nga yeew ko takk ko wala boog lonk gi ñuy lonk ci sëy maanaam ak ak ak ak fase maanaam nga xam te ne ndaw si gaa fase woo ko waaye da nga koo def rek mu àllaxan da nga koo bàyyi noonu rek yeew ko bàyyi ko mu lonk noonu nga di ko seetaan rek ak yu demee nekk noonu ndax lan ndax yii bokk gi ñu bokk maanaam ci ne dangaa dog jokk gi maanaam kon jokk googu lien bi waroon a am seen diggante da nga koo dog nee gi nga xam ne moom moo war a am sa diggante ak ndaw sax par exemple dog gi nga ko dog euh, sauf que bàyyiwuloo ko totalement maanaam ba tey sëy baa ngi fi ni ki noonu tamit lii tam wala boog taaliqu talaak mooy ma ne aj naa sëy bi ci nàngam fase gi ci nàngam aj naa ko ci nàngam comme toon tamit miir bi maanaam wala sàkket gi takk gi nga xam ne takk nga ko ba pare maanaam lonk ci mbir rek noonu pour mu téye ko Euh, xadisul muallaq kon moom mooy ma maanaam euh, euh, li ñu war a xam fii mooy bunt bi al imam ibnu salah rahimahullah dafa jël yi nekk ci biir bunt bi yépp mu tas ko tas ko ci biir Hmm? Euh, muqaddima bi maanaam wutalu ko bunt buntu spécial na an-Nawawi rahimahullah tamit noonu la def nga xamante ne léeg-léeg dañ koy boole ci saxeex léeg-léeg ak atteem léeg-léeg ñu boole ko ci wàllu hmm? euh, euh, yeneen yeneeni mbir daal alxaafiz al iraqi rahimahullah moom daf ko dajale ci benn bunt waaye ci côté saxeex la ko dajale maanaam ci buntu saxeex bi la ko dajale moom moom loolu moo gën a maanaam li ibnu Salah rahimahullah def moom la imam an-Nawawi def tamit moom la jàpp mais al imam al-Hafiz al-Iraqi rahimahullah moom daf ko jël dugal ko ci benn bunt maanaam mais ci bunt saxeex la ko dugal ndax euh, amaan na li mu bari ci biir saxeexul Bukhari rahimahullah waaye nii nga xamante ne moom la imam as-Suyuti rahimahullah def moo gën a rafet moo gën a baax mooy ber ko complètement te loolu moom la euh, al imam ibnu jamaa rahimahullahu taala moom loolu la defoon maanaam ber ko mu nekk xam-xam boo xam te ne tamit bu beru la boo xam ne dana doo ko dugal da nga koy dugal mu nekk buntu kese moom moom kese kese kese mu nekk maanaam sujet d'étude moom kese hmm. ki nga xamante ne nag moom moo njëkk tudd baat bi ne baatu muallaq mooy al imaam ad-Daaraqutni rahimahullahu taala moom moo njëkk tudd baatu baat bi ñuy wax hmm? baat bi ñuy wax muallaq loolu la al imaam ibnu Salah wax ci siyaanatu saxiix muslim rahimahullah eh, bi nga xamante ne moom la moom la moom la bind ci saxe imaam muslim rahimahullah li nga xamante ne nag moom mooy askanale gi ñu askanale maanaam gi nga xamante ne moom la bunt bi askanante ak bunt bi nga xam ne moom la jiitu loolu boo ko seetloo xam nga mawsuul ay maqtu mu'dal yooyu yëpp ak dog-dog lay wax ak mursal ak muallaq aussi yii yëpp ay dog-dog la ñuy wax sauf ko mursal dog-dog bi ci jeexitalu xadis bi la ne muallaq jeexital bi ci njaal njàlbeenu xadis bi la nekk mursal nag moo gën a yelloo ñu tudd ko ndax moom ak wéram maanaam dañ cee wute ak wéram dañ cee wute ak ñàkk wéram ne ndax mursal def na ko comme niñ ko gisee ci biñ ci tolloo ndax mursal def na ko laye wala déet ki noonu mursal moo moo gën a jege yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mu àllaq moo ñu gën a jege ñun <laughs> dégg nga pare mu àllaq euh, euh, euh, sikk nekkul ci ne bu fekkente ne xadis bi jokkewuñ ko feneen wala boog doguwuñ ci ci comme bu dee yu nekk ci saxex ne dogu nañ ci yooyu maanaam dañuy wax ne dafa daif comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee ci biir bunt bi inchaa allahu taala mu ne kon maa bépp xadis boo xam ne awalul isnaadu njaal beenu càllale gi yutlaqu dañ koo boyal maanaam dañ koo rotal dañ koo daaneel ndax dañ wax utliqatil asiru mooy dañ firi nañ maanaam eh, ki bi ñu tënkoon maanaam ta eh, eh, Euh, euh, prisonnier ba ñu tënkoon téye ko takk ko yeew ko firi nañ ko bàyyi nañ ko mu dem mooy utliqatul asir kon yutlaqu mu ne walaw ila axirihi donte ba ca mujjantel ak càllale gi la muallaq loolu muallaq la kon ci kaw loolu mu muallaq dañ koy wax sax xadis boo xamante ne par exemple yi nekk ci téere xadis yi nga xamante ne dañuy ñëw dindi caalale yi di wax qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ne bi sallallahu alayhi nee na wala ñu ne an abi hurayrata radiyallahu taala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi daal di wax loolu noonu xataa yooyu kon dañ koy tuddee mu àllaq mu àllaq le fait ñu wax ne njaalbeen gi moom la ñuy rotal loolu day génne completement xadis boo xam ne mursal la mais dañuy gis ne munqati' day dugg ci biir kon mu mu'allaq xeet la ci munqati' ki noonu moom ak mu mu'dal am na umumun wa xususun min wajhin maanaam am nañ généralité ak particularité ci genn wàll mooy mu'allaq ak mu'dal ñoom ñaan ñëpp ay nit rot nañ maanaam am na ñu solo ñu ay nit ñu rot ci càllale gi waaye bu fekkente ni mu àllaq la moom li ñu xam mooy njaal beenu càllale gi mooy rot ak njaal beenu càllale gi rek mooy rot moo xam kenn la wala ñu ko ëpp moo dal ñaari nit ñooy rot te tegaloo ak fu ñu mën a rote kon ce qui veut bu dee mu àllaq bi ñi rot ci càllale bi mat nañu ñaari nit yu tegaloo ci mu àllaq bi hadith ba day nek en même temps mu'dal deng kon ci kaw lolu mu'dal ak mu'allaq côté bobu lañu bok bokk imam an-Nawawi rahimahullah ci at-Taqrib dafa wax ne walam yasta'milu at-ta'liqa fi ghayri sighati al-jazm ka عن فلان كذا ويقال عنه ويذكر ويهكى وشبهها بل خصوا بل خصوا به صيغة الجزم كقال وفعل وأمر ونهى وذكر وحكى أبري متك قاله ابن الصلاح من إمام أنه رحمه الله ci taqrib dan euh duñuy faral di duñuy di li nga xamante ne moom mooy taaliq ci leneen lu bokk ci siratul jazm maanaam mooy loo xamante ne dogguwuñ ci comme lu demee nekk xaala nee na comme lu demee nekk maanaam euh, euh, maanaam kenn du koy jëfandikoo ci siratu tamrit maanaam ci loo xamante ne dañ naan siratu tamrit la maanaam loo xam ne waxin gi daa desee dëgër daa desee wóor comme buñ naan euh, soloo nañ ci diw wala Ah, nee nañu de jële nañ ci diw ak ñu ngay tudd di jële ci diw ak ah, nettali nañ ci jële ci diw ak yu mel noonu yooyu yëpp moom daf ni kenn du ko tuddee lan taaliq naam taaliq mooy jëf ji muallaq mooy xadis bi taaliq mooy le fait ñu def ko xadis maanaam ñu def ko le fait nit ki def mbir mi loolu mooy taaliq ah, comme par exemple mais mu ne dañ koy jëfandikoo rek ci siratul jazm moom rek lañ ko jagleel moom taaliq moom mu àllaq comme par exemple buñ ne qaala nee na wa faala def na wa amara digle na wa naha tere na wa zakara tudd na xakaa nettali na yooyu moom mooy moom la ñuy wax taal euh, euh, moom la ñuy wax hmm? euh mom lañ wax lan mom lañ wax ta'liq mune imam ibn salah rahimahullah moo wax euh sauf que al alxaafis al iraqi rahimahullah daf ni ñu mujj ñi ñom dañ koy jëfëndiko ci siratul jazm manam ci buñu dogo ci wax ji ak benen façon bi yëpp dañ koy def ta'liq mune euh hatta an nawawi mum ñom ci jëmi bopum an nawawi من الحافظ ابو المز اه دابور من الحافظ ابو الحجاج موي ابو الحجاج يوسف المزي رحمه الله موم تي بوبام تي ا تي اطراف الاطراف موم تي بوبام داف كو تي داف مانام دافا دافاي واخ معلق يي نيك صحيح امام البخاري تي مو داف كو تي صيغه بوكو تي صيغه الجزم مانام واخي كو نو خامتاني صيغه التمريض لا siixatu tamrit mook siixatul jazm lii la siixatul jazm mooy damay dogu ci li may wax siixatu tamrit mooy li ma wax doguwuma ci dama ne rek nee nañ kon man maanaam man assuré wu ci dara ci wax ci nee nañ rek laa wax <laughs> waaw at ajuma kenn ci wax ji nag waaw dégg nga euh, jëluma benn responsabilité ci loolu loolu mooy siixatu tamrit maanaam moo tax xam nga tamrit maanaam feebaral la maanaam wax ji ci boppam moo feebar maanaam moom lañu ñu feebaral maanaam dogguwuñ ci dëgërut dara waaw dafa am feebar dafa am doyadi ak euh, léegi mu ne imam an-Nawawi rahimahullah moom ci jëmmi boppam jëfandikoo na ko ci Riyadu Saalihiina ci xadiis Aïcha bi radiyallahu taala anha naan umirna an nanzila an-naasa manaazilahum digal nañ ñu ci hmm, ci maanaam digal nañ ñu ci ñu wàccee nit ñi seen wàccuwaay nit ñi daal nañu leen wàcc seen wàccuwaay waaw par exemple dadul teggin président de la république ñëw seet si la nga naan waaw man nit ñi ñëpp laa yamale ah kii ñi lalal ko basang déedéet maanaam eh, eh, eh, du teggin maanaam kenn ku ci nekk dafa am <laughs> cër boo koy jox parce que mooy diw loolu c'est très important euh, mu ne nag loolu lañ ñu digal mu ne إمام مسلم رحمة من ذكره مسلم في صحيحه تعليقا إمام المسلم رحمه الله تبنى كتير صحيح من هيك تعليق تم الفقر على الله وذكر عن عائشة رضي الله عنها لله إمام مسلم رحمه الله نتل ننجلي يا عائشة رضي الله عنها كن ما نم تكاو لول دال لين تجبلو موي كون تعليق دال نيمو جيني نيوم نيب دنج كوي جيفنديكو مو خام تي ا تي صيغة الجزم لا ولا صيغة التمريض من في الصحيح بودمي صحيح إمام البخاري الجامع الصحيح المختصر من أمور رسول من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه بإمام البخاري رحمه الله ذا لينغا خامتيني موم موي كثير لبرله parce que imaam al-Buxaari rahimahullah dafa bari lu mu wax mu naan Malik an Naafi an ibn Umar an nabi sallallahu alayhi wa kaza xam nga par exemple bu waxee qaala Malik an Naafi moom imaam al-Buxaari rahimahullah dajewul ak imaam Malik rahimahullah mais pourtant da ngay gis mu ko ci wax wala mu naan qaala Zuhri an abi salamata an abi hurayrata radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam wax wala mu naan qaala Mujahid an ibn Abbas an nabi sallallahu alayhi wa sallam wax li xadis bi wala mu naan qaala ibnu abbas an nabi sallallahu alayhi wa sallam wax nangam am na sax fu mën a ah wala mu jékki-jékki daal ni qaala rasulullah sallallahu alayhi par exemple loolu dañ koy gis ci saxee moom Buxaari lu bari rahmaallah léeg-léeg sax da gis euh, mu ne fiihi Saad <laughs> dafa ñëw rek indi tarjuma euh, daal ni fiihi Saad mu dadi dadi commencé dadi indi ben hadith fi sa'd ibn ma Abi waqas lay wax radiyallahu anhu moy haditham bobu nga xamne bimu ci hajjatul wada bimu febare ba yantib sallallahu alayhi wasallam seet si ko hadith bobu par exemple da nga gis mu tuddé ko non rek dadi ñëw rek tuddu non daal na sa'd mu dadi jeex euh hadithul muallaq mom normalement atem moy na dafa daif parce que ki ñu tëpp lañu xamul parce que inqita dafa am kon dafa daif waaye boo xoolee saxeex imaamul bukhari rahmalahu comme daf ci ñëw te ñom dañ ni hadith yi sahih lañ hadith sahih rek lañ ci rotal manam mom manam cosaan bi en tout cas sahih la lool mom moy li nga xamantene mom motax borom xam-xam yi rahmatullah alayhim yittewoo ko mom kon sahih imam al bukhari li nga xamantene mom mo ci rot ci ay hadith yo xamantene muallaq lañ am lañ 1341 comme nal hafiz Ibn hadar rahimahullah wax ci hadith sari yi am na mille trois cent quarante muallaq lañ mu am 159 yo xamantene répété watuko kon da ngay gis ne imam al bukhari rahimahullah da fay indi ay hadith yo xamantene ci bir sahih bi yo xamantene daf koy répéter wat yu bare bare bare lol mom motax li tax deug deug muy indi ay xadis yoo xam ne muallaq lañ manam ay muallaqat manam pluriel bi moy muallaqat muallaq pluriel bi moy muallaqat le fait que imam al bukhari rahimahullah par exemple dani qala qaala qaala Zuhri wala qaala Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu wala qaala ibn Abbas radiyallahu anhu et cetera lolu mom lañ tuddé ta'liq manam le fait que mu def ko le fait que mu wax wax ji ci bopam mom moy muallaq manam hadith bi ci bopam bok moy hadithun muallaq leg leg nga gis euh euh ñu ne ci ben téré ne zakarahu al-bukhari ta'liqan wala rawahu al-bukhari ta'liqan hadith bi da imaam buxaari soloo na ko taaliqan maanaam lay tek moy ne daf ko indi mu nek hadith muallaq ci sahih bi mune mais kon lan li pose question biñu ñu posé mooy mille trois cent quarante et un xam avec répétition euh euh ak et cetera manam buñu guenné parce que xam nga buñu guenné yi nga xamné ta'liq lañ mu'allaqat yi lañ euh waxon nañ la 5763 la manam buñu guenné mu'allaqat yi yi nga xamné ta'liq lañ wala hadith yi nga xamné mawquf lañ ah et cetera wax ñi nga xamantene ñeneen lañ duñu wala maqtu' lañ yoy yep buñ leen genné hadith yi rayé yenen tou sallam rek and ak seen répétition 5000 hein 600 5 non 5600 non 5763 lañ lolu waxon nañ lako ci sax imam bukhari rahmalah mais su fekkenteene dañu jël hadith yi nga xamantene rek ñom mu'allaq lañ manam yoy kenn compté walé wu ci 5763 yoy 1341 lañ 159 kessé la ci répété watul manam manam kon ci 1341 yi lepp daf jëlat indi wat ko ak càllale ñu compter ko ci 5763 yi ma la wax sank yépp ba mu des 159 ci yoy. 159 rek lañu répété watul yoy mum tuddu watul leen fenn daf leen indi rek non kon dafa am question buy posé wu mais lan moo tax kon imam al Bukhari rahimahullah muy indi ay hadith yo xamante ne dafay wër après mu koy def ta'liq wala tout simplement xadis yoo xamante ne daf koy def taaliq du ko indiwaat maanaam mu àllaqaat yi imaam al Buxaari rahimahullah di def ci saxee saxiixam ana lan moom mooy li ko waral li ko waral en fait moom mooy euh, dafay dëgëral léeg-léeg xadis bi nga xamante ne maanaam xadis euh, euh, yi nga xam ne daf ko indi day indi benn bunt indi hadis bo xamantene dañ koy day nek lu euh loo xamante ne am na xadis bu dëgër bu nek ci bir musnad mais da fay indi hadis wax bo xamne ne muallaq la hmm ngir gëna a wax ci manam ngir gëna a hadis bobu non pour wax ne hadis bi bëriwul léeg-léeg tamit mu indi ko aussi pour teunk comme que indi won na hadis bële avant léegi dama ko indi rek pour tënk pour bañ a baamuwaat répété waat càllale gi ndax imam Buxaari rahmallah souvent mais vraiment très souvent c'est extrêmement mu def contraire bi mooy su indee benn xadis ak benn càllale ak benn même mooy jamais mu répété waat ko du ko répété waat ci biir saxeex bi saa yu répété waatee xadis bi ci biir saxeex bi doo fekk ne beneen càllale la am maanaam kon dafa am njariñ ko aju ci wàllu isnaad yi bu mu cay jàngale wala boog mu am ay muu yoo xamante ne nekk na ci riwaaya bi te nekkul ci beneen riwaaya bu njëkk bi mu indi ko ngir loolu maanaam kon du baamu rek pour zéro tout le temps moo tax loolu tax daf koy pousser parfois su bëggee indi ci benn bunt benn xadis boo xamante ne indi woon na ko wala dana ko indi ji ci nu mat sëkk maanaam ci mu nekk musnad bu boobaa day daal di nag jël xadis boo xam ne muallaq la mu def ko fa loolu daf koy di def rahimahullahu rahmatan wasia léeg-léeg aussi mu fekk ne xadis bi dafa remplirul ay chartam xadis bi wér na wala tout simplement en tout cas bëgg na ko sukkandikoo mais nag remplirul chartam remplirul condition yi nga xamante ne moom la moom moom la imaam al Buxaari rahimahullahu taala di indee ay xadisam moo tax mu koy indi comme par exemple imam al Buxaari rahimahullahu taala bi mu ne wa yurwa an ibn abbasin radiallahu anhuma wa jarhadin wa muhammad ibn jahshin radiyallahu an nabi an nabi sallallahu al faxidu awra par exemple foofu imam al Buxaari rahimahullahu taala par exemple bu daal di ñëwee daal di wax loolu daal ne ah, nañ ci ibnu abbas ak jarhad ak muhammad ibnu jahsin radiyallahu anhu mu ñu jële ci yenente bi sallallahu alayhi mu ne alfaxitu awra pooj de awra la pooj maanaam ci góor pooj awra la hmm? euh, loolu mi ngi ci génne na ko ci kitaabu salaa xadis boobu imam al buxaari kon rahimahullah nii la ko solowe maanaam te indiwul benn càllale bu boobaa dañ naan allaqahu al-Bukhari allaqahu al-Bukhari wala zakarahu al-Bukhari taaliqan léeg-léeg mu am benn partie ci càllale gi boo xamante ne imaam al-Bukhari rahimahullah da koy dindi maanaam léeg-léeg kon du dindi lépp mais day dindi benn partie ci càllale gi comme fi imaam al-Bukhari rahimahullah rahimahullah daan ne qaala Affaan haddathana Saxr ibn Juwayriya عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أتسوق بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقال لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما imam آه، البخاري رحمه الله تعالى في dafa قال ne qaala xam nga gis nga moom dafa ne qaala Affan mu ne Affan nee na xaddathana ah, Saxr ibnu Juwayriya ah, an Naafi an ibnu Umar radiyallahu anhu mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wa dafa ni man de damaa gént nekk di soccu ma am benn waay maanaam mu am ñaar ñu ñëw toog sama wet kenn ki moo gën a mag ki ci des ma jël soccu bi daal di koy jottali ki gën a ndawe nee na ñu ne ma màggalal kabbir maanaam joxal ki gën a mag loolu nag euh, am na ci yeneen riwaaya yu nekk comme musannaf ibn abi shayba rahimahullah indi na xadis bi intégralement ci musannafa yooyu moo tax yii loolu bokk na ci njariñal téere yooyu noonu mooy ne léeg-léeg imaamul buxaari rahimahullah day def taaliqaat yi souvent boo demee ci musannaf ibn abi shayba wala bu ibn ah, bu abdurazaq wala ci musnad imam ahmad ibn hanbal ولا تهذب الآثار من الطبري ولا آه، آه، آه، بإمام كيبند إمام الطحاوي رحمه الله شرح معاني الآثار أجيو بنتي جيس حديث يوي سوفن بون بارفوا تامن جا فيكو تي سنن يي ولا تي صحيح مسلم اتسترا رحمه الله لغي ci riwaya bu nek ci mustanaf ibn abi shayb rahmalahu ak mustanaf abd rahman rahmalahu suma jumul mom mune e jibril alayhi salaam moo ne ma kabbir màggalal maanaam jox ko ki gën a mag nee na ma jox ko ki gën a mag ci ñoom ñaar par exemple imam al-Bukhari rahmallah fii dangay gis ne dafa tudd Affan te digganteem moom ak Affan am na nit ku ci nekk te moom mooy e, ibnu muslim as-Saffar maanaam e, mooy mooy imam al-Bukhari maanaam Affan ibnu muslim as-Saffar boobu noonu nga xamante ne moom la tudd maanaam moom ak imaamal Buxaari am na benn nit bu nekk seen diggante yaa ngi dégg kon maanaam moom bu mu ne qaala Affan Affan nee na te mooy Affan ibnu Muslim as-Saffar rahimahullah am na nit ku nekk seen diggante parce que imaamal Buxaari ak Affan musuñoo gisee imaamal Buxaari fekkiwul sax Affan jamonoy Affan dégg nga wax di am na koo xam te ne intermédiaire la léegi. Euh, imaamal Buxaari yi par exemple dañuy gis ne kon dafa bari lu muy indi taaliq yi comme ni nga xam ne noonu lañ ko xe léegi nag mu ne euh, njariñ gi nag comme niñ la ko waxee maanaam souvent ci ñaari sabab yi ñu la wax lay dellu mooy ne xadis bi kon mooy ne euh, xadis bi day bëgg rek tënk manam day bëgg rek tënk ne ixtisaar maanaam tënk euh, li nga xamantene mom moy wax parce que bëggul di répéter di réyal ca kii bi téré bi ci lo xamantene ne am na ko ba paré hadith bi mi ngi fi mi ngi ci biir ba paré intégralement mat nan wa sanadam deng ci walu mat ak ci walu sanad intégralement mi ngi fi ba paré kon jarum mu koy muy gëna guddal hadith bi comme par exemple exemple bi ma la jox sax fi ci saada lool rek la wax and ak ne hadith bu gudd la maanaam relativement gudd la quand même hmm. Hmm. Euh, par exemple euh, imam al Bukhari kon rahimahullah kon loolu parfois daf ko ci daf ko ciy jublu léeg-léeg tamit xadis bi nekk ci moom ci benn càllale kese ci chartam mu bëgg a leeral hmm, maanaam Euh, mu soxla xadiis bi ci ñaari bunt yu wuute benn bunt bi mu indi ko ci càllale gu bi ci ci càllaleem parce que remplir na ay conditions parce que condition Bukhari waxoon nañ la ko moo gën a tar rahimahullah après ci beneen bunt wala yeneen bunt yi mu daal di koy def taaliq dégg euh, parce que loolu moom moo tax comme li la wax sànq imam Bukhari rahimahullah du du di répéter c'est extrêmement rare voilà léegi léeg-léeg mu am beneen cause tamit bu ko waral mooy ñaareelu cause bi mooy xadis bi dafa nekkul ci chartam du tout du tout léegi mais moom dafa bëgg maanaam euh, euh, euh, mu bëgg indi njariñ loo xamante ne dafa nekk ci téere bi ci ci ci bunt boobu wala ci xadis boobu noonu wala bokk ci lenn ci waxu saxaaba yi radiyallahu anhum wala lenn ci taabii yi ci lu demee nekk par exemple ci buy fiir benn atte wala buy leeral benn atte comme li mu bëri ci saxe bi kuy xool saxal Buxaari dañ ciy gis lu bëri yu mel noonu am danañ ah az-Zuhri de ak nangam wala Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu nee na nangam nangam wala par exemple Malik de doon na wax nangam ak nangam yaa ngi dégg yooyu dafa bëri lu mu nekk ci saxe imaam Buxaari rahimahullah wala Sufyaan de nee na nangam moom as-Sawri rahimahullah par exemple yooyu boo ko seetloo ci biir saxeexam danga nga ci gis mu bari yooyu nag mu bëgg koo indi mais mu indi taaliq bi comme que remplirul chartam yi de toute façon mu indi ko def ko taaliq hmm? euh, parce que su ko indi woon ak càllale def ko musnad su ko defoon musnad rek xadis bi problème bi mooy xadis boobu mu tudd foofu day daal di génn chartam kon bu boobaa day daal di wàcc li nga xam ne moom mooy chartam yi mu bindee téere bi parce que téere bi daf ko wutal comme niñ la ko waxe ci biñ ci tollé légui nak bu fekkente ni cause bobu mom motax imam al-Bukhari rahimahullahu taala dadi def nu mu dadi def ta'liq bi lolu du tekki ne tout temps ne hadith bobu dafa daif fa mom mais day tekki rek ne lolu remplirul condition légui nak ba xam hadith bi day deuguer wala du deuguer dafa laaj beneen teqantal xadis boobu ndax wér na wala wérul dafa laaj lan beneen teqantal donte indiwu ko feneen comme cent cinquante neuf yi ñu la wax nga xam ne indiwu ko feneen ci biir saxeex bi indiwu ko feneen dafa amul fenn fu mu ko indee mu nekk musnad mu boobaa dafa laaj ab teqantal mu ne fallazi xadis bi nga xamante ne uti dikkin dikkeef na ko bi ci moom manam ci sahih bi euh manam mu nek muallaq uti dikef na hadith bi bi ci melok manam mom muallaq bi sighatil jazmi ci melok dogu khudi jàppal sihhatahu ak wirum anil mudaafi wal manam jële ko ci nga xamantene manam al mudaafi anhu mom lañ ko askanale manam su fekkente ne xadis bi dafa ñëw ci yeneeni maana maanaam ci euh, euh, xadis bi dafa ñëw mu daan ne qaala imaam al-Buxaari daan ne qaala fulaan diw nee na su fekkente ne xadis boobu dafa ñëw ci même càllale bi ànd ak maanaam siixatul mi maanaam mu dogu ci comme mu ne diw nee na daal di yokk càllale bi wax ko xamal ni hadith bobu wirna ba ci koka mu ko wax ba ci koka comme moy comme hadith euh afan bi afan ibnu Muslim astafar bi ñu la wax sank nga xamantene euh daf daf ne qala afan hadathana sahr ibn Juwayriya an nafi' an ibn Umar radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala dadi wax xadis biñ ñu la wax sànq par exemple xadis boobu da ngay gis ne wér na moom moom sikk nekku ci ne wér na ba ci moom bokk na ci par exemple fi mu naan qaala Ousmane ibnul Husay ibnul ibnul Haysam xaddasanaa Awf qaala xaddasanaa Muhammad ibn Sirin an abi hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala wakkalanii rasulullahi sallallahu alayhi wa bi zakati ramadan mooy xadis boobu noonu Euh, mooy fi muy tuddee fi muy tuddee naan ba maanaam euh, ne Abu Hurayrata radiyallahu anhu Yonent bi sallallahu da ko joxoon muurum koor yi ba Iblis ñëw maanaam seytaane ñëw <laughs> seytaane bi ñëw di ko di ko sàcc mu koy jàpp et cetera xadis bu siiw boobu hmm? par exemple boobu da gis ne tudd na ko ci ay parties yu bari tudd na ko ci fadailul Qur'an tudd na ko ci zikru Iblis waaye amul fenn foo xamante ne dafa wax ne xaddathana Usmaan kon moom mooy ne xadis bii dégguwu ko ci osmaan boobu noonu dégg nga kon moom dana rek xaala Usmaan ibnul Haytham par exemple mais loolu ba tey dañuy gis ne dogu gi mu dogu ci wax jooju day tax ñu jàpp ne xalis bi wér na maanaam kon loolu maanaam loolu il faut que nga comprendre ko leg leg mu nek tamit lo xamantene daf ko wax dafa ni qala fek hadith bi gaa wér na wér na moom ba ci moom maanaam waaye waye rempli waaye remplirul sartam comme fi mu waxee ne ci ci bi mu naan wa qaalat Aïcha radiyallahu anha wa kaana nabi sallallahu alayhi wa sallam yazkurullaha ala kulli ahyaanihi mu ne Aïcha radiyallahu anha nee na yenent bi sallallahu alayhi wa sallam da dafa nekkoon koo xamante ne da daan tudd yàlla saa su ne ci xaal bu ne saa su nekk da daan tudd yàlla par exemple loolu noonu da daan zikar loolu xadis boobu par exemple wiir na parce que imam muslim rahimahullah indi na ko ak càllale mu dëgër waaye problème bi mooy càllale ko remplirul condition yi imam al Bukhari rahimahullah loolu tamit imam al Bukhari rahimahullahu taala dina ko wax euh, léeg-léeg mu indi ko dogu waaye xadis bi day nekk boo xamante ne maanaam euh, maanaam day nekk xadis boo xam ne saxeex lay doon xadis bi day nekk saxeex sauf que dañuy wuute ndax xasan na wala déet mooy saxeex degré xasan bi gën a kawe mooy yi nga xamante ne comme Bahz ibn Hakim an abi an jaddi comme ni ñu ko waxee mooy côté mooy xadis yi nga xam ne xadis yi am na ñu ne sax saxeex na mais dañuy wuute ndax saxeex na walla xasan na moom mu xam ne mëneef na koo laye mu dem indi ji ko comme fi mu waxee naan euh, wa qaala bahz ibn hakimin an abihi an jaddihi allahu ahaqu an yastaxya minhu bahz ibn hakim mu jële ci bàyyi mu jële ci maamam mu ne yàlla moo gën a yey ci ñu hmm? maanaam mu jële ci yeneen bi sallallahu mu ne yàlla moo gën a yey ci ñu am kersa ci moom te xadis bi xadis la boo xam ne waa sunan asxaabu sunan maanaam imam Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i Ibn Maaja rahmatullah ñoom ñëpp solo nañ ko ci càllale yu dëgër kon loolu daf koo indi maanaam ànd ak ne dafa euh, euh, daf ko solo mu nekk loo xamante ne daf cee daf cee dogu kon ci kaw loolu ci la ñu ni ne euh, imam al Bukhari rahimahullahu taala léeg-léeg mu indi kon bu indee loolu maanaam kon lu yi nga xamante ne daf cee dogu moom day nekk loo xamante ne dafay wér soit ala da day yor daraja sixa bu kawe wala boog mu yor daraja sixa boo xam ne dañ koy gam-gamle ak xasan mais daal dafa nekk loo xamante ne moom sikk nekku ci ne dana wér léegi mu des beneen affaire mooy su fekkente ne dafa taaliq xaalis bi moo tax mu mu teg ci ne kon xudu si xataw anil mudaafi anhu wa xayrahu daif waaye leneen lu dul loolu daif daifal ko maanaam wa xadis bi léeg-léeg mu daif su fekkente ne indiwu ko ci dogu maanaam mu ne wala tuuhinhu waaye bul ko doyadal euh, soo xoolee am na xadis yoo xamante ne par exemple def ko indi ci maanaam yuskaru yurwa ruwiya an comme ni ñu wax sànk rek xokkiya an et cetera nettali nañ wa yuqaalu an diw yooyu noonu xadis yooyu noonu dafa nekk yoo xamante ne wér maanaam euh, euh, am na ci yu wér attention am na ci yu wér waaye am na ci yoo xamante ne day nekk loo xamante ne duñu wér mais moo tax imam as-Suyuti rahimahullah ne la daif na ko doyalal maanaam kon jàppal ne xadis bi wérut ba keroog kon ngay am preuve ci yeneeni càllale yi wane ne xadis boobu wér na kon càllale googu ci cosaan dafa fekk ne wérut moo tax kon imam al Buxaari rahimahullah ci lii lañuy ñuy xamee ne comme ni ko al imam as-San'aani ak imam Ibn Salah rahmatullah alayhi ma waxe ak ñeneen ci li lañu xamé ni kon imam Bukhari rahimahullah bu né hadith càllal bu ñu la lépp lu nek Sahih Bukhari lu wér la moy hadith yi nga xamné musnad lañ mais pas hadith yi nga xamante ne lan manam maanaam ñu musnad manam ci ay muallaqat lañ yaa ngi euh mais nak amul lo xamante ne ci taaliqaatu imaamul Buxaari rahimahullah yo xamante ne dañoo daif jiddan dégg loolu amul loo xamante ne dafa daif jiddan jiddan jiddan jiddan loolu amu ci saa yu amee daa doofu léeg-léeg doofu gi du ko tax a du ko tax a rëy noonu comme par exemple fi muy waxee ne wa yuskaru an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qada bid dayni qabla al wasiya ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam tudd nañ jële ci moom gis nga wa yuskaru tudd nañ di jële ci moom waxul ne yenent bi def na ko dañuy nettali nañ jële ci moom tudd nañ jële ci moom ne dafa fay bor laata muy wasiya bi maanaam wasiya mooy testament nit dee ñu fay ay borom ba pare dooga a doog a wéyal li nga xamante ne moom mooy ndénkaane yi mu joxe woon testament yi mu joxe woon xam nga loolu maanaam bu dëgër la imam Bukhari rahimahullah pourtant indi ko maanaam bu dëgër la mu ne waaye nag waaye xam nga xadis boobu mais xadis bi wérut ndax imam at-Tirmidhi rahimahullah soloo na ko mu nekk ci yoon yoonu al-Harith al-A'war an Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu te loolu <laughs> waxoon nañ leen moo gën a eh, dayade ci xadis yi nga xam ne ñoom ñooy jóge ci ahlu bayti rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ndax xaaris bi dafa daif eh, wala boog par exemple nga gis fi mu naan mu ne eh, mooy mooy fi mu fi mu waxee mu ne wa yuskaru an abi hurayrat hurayrata radiallahu laa yatatawau laa yatatawau al imaamu fi makaanihi mais ci ginnaaw gi gis nga xadis bi comme dafa daif lool lool lool lool daf koy préciser mu ne walam yasix ne imam ne abu hurayrata radiallahu anhu day tudd nañ jële ci moom ne xadis bu bu mu yëkkati ba ci yeneen bi saa xam nga waxoon nañ ne la yarfauhu riwaayatan yanmihi et cetera yooyu mu ne ne imam du julli du du du def la du julli coobarew fan ci place bi nga xamante ne fa la jullee imam bu jullee fenn ba pare bu waree julliwaat day déplacé wu julli feneen mu ne xadis boobu mu ne walam ya loolu wérul dégg kon moom saa yu xadis bi wérul lu ci ëpp daf koy préciser bu fekkante ne dafa doye di torop su doye torop maanaam mu am faiblesse boo xamante ne taxu koo rëy lolou du jar mu koy préciser mais su feebaree lolou lolou lolou hadith bi daif lolou lolou lolou imam al bukhari rahimahullah taala daf koy daf koy préciser kon li manam euh yi ay mbir la ñu mata bayi xel motax hmm leg leg tamit mu daali wax ne amna diw am na fu mu fu mu nekk ci kii kitaabu salaat eh, ci waxtu yi am na fu mu waxee ne wax indi waxu Sufyaan Asawri wala wala Ibrahim an-Naxa'i rahimahullah daal di wax wax ji ba pare daal ni diw di lii la doon wax daal ne wa qawlu nabi sallallahu alayhi wa sallam asax waxu yenent bi sallallahu alayhi moo gën a wér maanaam pour wax ne fatwa boobu imam boobu joxe dëggul baaxul daal te daf ko def taaliq après nag mu daal di wis xaddasana daal di indi nag eh, musnad bi <laughs> non moo tax saxiixul Buxaari sax téere téere la bu yéeme yéeme wallahi moo tax euh, al kutubu sitta bu la ci yéem bu la boo ci jël rek day foog ne bi ci moo gën a yéeme waaye amaan na nag bi gën a baax yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp ëpp leen njariñ peut-être amaan na mooy sunan imam at-Tirmidhi rahimahullah amaan na boobu la waaw euh, kon nag maanaam yii yëpp da lay wan ne la maanaam taaliqaat yi nekk sax imam Buxaari dañ cee war a def attention maanaam. du ñu ñëw rek joxe ab àtte boo xamante ne dafa général hmm? du ñëw rek joxe ci ab àtte boo xam ne dafa général dañ naan bu defee indi siratul jazmi maanaam siratul jazmi mooy wax wax joo xamante ne dama damay wax wax joo xam ne damay doog ci ne moo ko wax bu boobaa ah ci ba kam ko askanale wér na après mu indi càllale gi loolu wér na soit mu ngi ci biir saxeex bi wala boog soo demee ci yeneen téere yi da nga fa fekk ñu jokkale ko su fekkente ne du lolou sixatu tamrid motax imam al-hafiz ibn hadar rahimahullah bind ben tere bu mu tuddee ta'liq taaliq ta'liq nga xamne ab tere la bo xamne ne mboolem xadis yi nek sahih imam bukhari te mu nek ay muallaqat yep dafa indi ci jële ko ci yeneeni tere yo xamante ne dañ ko jokalé ngay nga dañ moo mu ne takhliq takhliq ghalaqa muy tëj manam fexe ba tëj li nga xamantene mom moy bunt manam yi nga xamne dañ leena a manam moy mooy yoy yooyu ña ca manqué mu dugulat leen manam pour pour rap pour pour dëgëral affaire bi pour wone ne hadith yoy quand même tout de même manam jokkolo nañ manam mu jokkolo wat jokkale leen waye comme niñ la ko waxe dafa am tekantal batay moy ne yi nga xamantene daf ci dogu yoy wër nañ yi nga xamne dogu wu ci dañuy def dañuy xol amna ci yo xamantene indi wat nako ci bir càll ci bir xadis yi musnad yoy wër nañ yi mu indi watul ci bir musnad yoyou we ah, yooyu ah, ah, dañuy seet ndax ci yeneeni téere yi wér nañ fa wala déet am na ci yoo xam ne wér nañ am yoo xamante ne wéruñu lii moom mooy li nga xamante ne moom mooy teqantal bi léegi nag mu des doole yi maanaam da ngay gis loo xam ne dafa daif jiddan jiddan jiddan jiddan ba nga xamante ne kenn mënu ci sukkandiku du tout du tout tout maanaam loolu maanaam ne dafa doye di lool lool lool du loolu amul ci Sahih Imam Bukhari lu dul ne su amee rahimahullah moom ci boppam dina ko leeral danaa nangam de wérul wala lii day wax jenen ge ko gëna wér bi hadith mo gëna wér wala yu mel non wala mu ne hadith bi manam comme ni nga xamne exemple bi nga xamne mom moom lañ la jox sank ci hadith Abu Hurayrata tabi radiyallahu taala anhu imam as-Suyuti rahimahullahu taala dane wa ma aza li shaykhihi bi qala fa fil asax comme lahu tisala وما عزا لشيخه بقالا ففي الأصح احكم له اتصالا وما عزا لب لو خمتنا أسكن لنكم إمام البخاري لشيخه شيخي سرين بقالا تينا نينا أك يمل نونا كم باتو زكرا كم باتو زادا كم باتو روا كم باتو حكا كم باتو عزا ak yu noonu rawaa solo na zaada dolli na ci càlléegi nangam ah zakara tudd na ra ah, solo na aza askanale na la askanale na nee na maanaam muy loo xamante ne daf ko wax mu leer mais kooku bu ñu xoolee nit kooku mu wax im kooku sëriñ la en même temps ci imam al Bukhari rahimahullah mu ne kooku uxkum àtteel loxo ñeel xadis boobu ittisaala akuk jokk kon jàppal ne xadis boobu kon sikk nekkul ci ne lan la sikk nekkul ci ne jokk na euh, loolu mooy li nga xamante ne mooy fil asax mooy li gën a wér parce que am na beneen wax boo xamante ne ñoom dañ ni euh, su fekkente ne nekkul ci charte maanaam daf nekkul ci charte moog yeneen taaliqaat yi ñoo yem rek ndax ñoom fi ñu sukkandikoo mooy dañ ni su fekkente ne imam al Buxaari yi rahimahullahu taala dafa wax xadis boo xamante ne wér na maanaam xadis boo xamante ne dëgër na maanaam wér na ba pare mu jële ko ci sëriñam bu dee ci sëriñam la ko jëlee dina du du wax qaala danaan day wax exactement ne xaddasana wala sami'tu maanaam xaddasana wala axbarana wala ambaana maanaam wax bi mel noonu lay wax mais du ñëw rek naan qaala nee na nee na nee na déedéet ñoom loolu lañ wax waaye li gën a mooy ne te moom mooy waxu al imam ibnu salah mooy alxaafis al iraqi euh, alxaafis ibnu xajar al imam as-suyuti rahmatullah al jami ak ñeneen ñoom li ñu wax moom mooy bu ne qaala moom mooy ne loolu dafa wér manam ne ci sahih imam bukhari mum la manam ne jóge ne kon wér ne dafa jóge ci mom su qala fulan wala mu an fulan diw neena même bu né an fulan jële nañ ci diw manam waxul hadathana wala yoy parce que lutax parce que imam al-Buxaari rahimahullah mom ci bopam du mu dalis mom du def tadlis kudul def tadlis nak mom bu boba bu waxé nonu hadith bobu dañuy àtte dafa jokkaloo Euh, ba pare tamit dañuy gis ne loolu buñ seetee téere imaamul Buxaari comme ci taarixul kabir lu bare bare day jëlee ci ay sëriñam naan xaala wala an fulaan yooyu noonu hmm? ay sëriñ yoo xamante ne maanaam ay xadis yoo xam ne yu wér lañ te loolu comme daf koy faral di def ci taarixul kabir par exemple dafa bëriwul lu koy def ci saxeex bi mais ci yeneen yi da ngay gis mu koy def yu bari kon parce que borom xam-xam yi rahmatullah alayhim surtout jamono jooju dañ jëfandikoo lu bari kon loolu ab lënt lënt amut ci ah, buñ ci joxe exemple nag exemple peut-être bi ci gën a leer maanaam te gën cee siiw mooy exemple xadisul maasif bu siiw boobu mooy xadis bi wax ci affaire musique eh, moom lañuy ñuy faral jox ndax moom imam al Buxaari rahimahullah moom daf ni wa qaala hisham ibnu ammar xaddatanaa sadaqatu ibnu xaalidin qaala xaddatanaa abdurahman ibnu yazid ibnu jabir qaala xaddatanaa atiyat ibnu qays ibnu qaysin alkilabiyu qaala xaddatanaa abdurahman ibnu ganm al ashari qaala xaddatani abu amir aw abu malik al ashari رضي الله تعالى عنه والله ما كذبني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرير حرة والحريرة والخمرة والمعازفة ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بصارحة لهم يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقولوا ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة آه kon xadis boobu nga xam ne moom la indi ci hmm, kitaabul ashriba baabu maa jaa fi man yastaxillul xamr xadis boobu noonu maanaam bunt boobu mu ne Hicham nee na xam nga Hicham ci sëriñu kan la bokk moom Buxaari rahimahullah Hicham ibnu Ammar hmm? moom daf ne Hicham ibnu Ammar nee xaddasana boo seetloo xadis yëpp maanaam ñi des ci càllale bi yëpp da ngay gis ñoom ñëpp dañoo wax xaddasana xaddasana xaddasana ba ci hmm, euh, alkilaab yi bi mu ne xaddasana abdurahman ibn mu ne xaddasani abu amir wala boog abu malik al ashari radiallahu anhu maanaam ñaari kenn la ci ñaari saxaaba yooyu maanaam kon alkilaab yi moo dute est abu amir la wala serigne bi moo dute maanaam sëriñ buxaari mooy hisham bi ibnu ammar moo dute ndax abu amir la wala abu malik al ashar radhiyallahu anhu ken la ci sahaba yi mune wallahi ma kadhabni wallahi lim wax waxna ma te lim wax deug la manam waxul ma luddul deug mune mu na dégg naa sallallahu alayhi wasallam ci bopam mune ne la yakunanna min ummati aqwam amna dana nek ci sama xet bi ay nit ñoo xamne yastahilluna al hirra wal harira wal khamra wal maazif dina ñu daganal maanaam dinañ dem bay daganali ji maanaam mooy wane ni kon daganu doon daf xaram lan njaaloo mooy alxerra mooy jigéen ñi di eh, eh, di di mën di jënd seen yor seeni carte ñu jàpp ne li ñuy def amul problème bàyyi leen ko c'est son travail ah voilà kenn ku ci nekk il a son métier <laughs> donc elle aussi elle a le droit voilà hein voilà Euh, tout simplement ay nit ñu dëkk té nous ñu dëkk ñu bàyyi ñu dëkk bon écoutez que chacun voilà hein voilà bon en tout cas voilà nous ñu yu mel non nous wala rek euh, euh, par exemple ay je sais pas manam nit ñi ñu ñu permettre li nga xamantene mom moy condition yi tax ñu tasaaroo ci dëkk bi kenn ku ci nekk jàpp ne bon tu jamono la nañ bàyyi noonu bon bu kenn kii maanaam ñu am benn maanaam abdiqué totalement bàyyi ne non bul maanaam sax daanaka sax jarul maanaam bul ko sax jéem a dindi ndax dañ lay gëmloo ne la waroo ko jéem a dindi mu ne noonu mu ne walla boog tout simplement dem ba jàpp garawul ko quoi voilà garaawul quoi voilà boo xam ne am na ñuy def lu gën a bon lii garaawul quoi. comme ni ak soie ci góor góor ñi sol ay soie ñu naan garaawul ak sàngara ñu naan sàngara ak instruments musicaux yi ñu musique di sabar di tëgg di kii gars yi naan waaw ci la hmm? li ci gën a garaaw parfois dañ koy dugal ci diine ji jàppe ko ko yàlla nañu yàlla sàmm mu ne mu ne wala yanzilanna aqwamun ila janbi alamin yaruuxu alayhim bi saarihatin lahum yatihim li xaajatin maanaam yatihim maanaam alfaqir euh, yaani euh, mu ne te giñ naa ne ay nit dinañu nekk ci wetu doj benn montagne maanaam dëkk ci zone montagneuse wala yooyu ay nit ñëw di leen di saa su ñëw gontal leen ñëw di leen laaj ngir aajo ñëw ni leen a ah, man dama am aajo sàngam wax leen ko proposé leen ko fa yaqulu ñu naan ko irji' ilayna xadam waa dellu sil ëllëg yenent bi salaa salaama ne fa yu allahu wa yadaul alama wa yamsaxu axarina qiradatan wa xanazira ila yawm al qiyama mu ne saa borom subhaanahu wa loolu sabab boobu tax mu daal di fanaanal leen mabbal li nga xamante ne moom mooy tabax maanaam tabax yi wala montagne yi ci seen kaw ñeneen ñi mu defal leen masx maanaam mooy mu soppi leen def leen ay golo ñeneen ñi mu def leen ay mbaam xuux ba yowmal xiyaamati kon dangay gis ne Hisham ibn Ammar moom kon xalis bi ci sëriñ maanaam hmm, imaam Buxaari raximahullah ci sëriñam mi la ko jëlee ah, maanaam ñu dindi benn lënt lënt balaa ñoo yegg ñu yeggale manam hadith bi da fay woné ne parce que imam ibn Hazm rahimahullah moom dafa jàpp ne hadith bi wirul ndax néna hadith bi li wane né wirul néna moy imam bukhari Buxaari waxul xaddasanaa mais loolu waxon nañ la la li gëna wér ñi gëna ñu gëna mag fofu imam al bukhari wërul nañ hadith bi maanaam imaam astaxfirullah ibn Hazm mom bukhari wërul nako imam al hafiz al iraqi wërul nako al hafiz ibn Hajar wërul nako al imam ibn Salah wërul nako imam an-Nawawi wërul nako alxaafiz as-Suyuti wéral na ko rahmatullah al jamia ñii ñoo gën a màgg foofu ci xadis kan al imam ibn Hazm rahmatullah euh, léegi soo ñëwee ci beneen lënt-lënt boo xam te ne aju na ci xadis bi mooy bu ñu xoolee yii mu tudd yëpp ne dañoo xaraam te dana am ñu koy dagana ji loolu mooy wane dañoo bokk xaram kon musique ci boppam dafa xaram amul werante ay sabar ay tabala ay tëb yooyu yëpp dañoo ñoo yam lépp loo xamante ne day tax nit ñi parce dañuy détourné ci borom bi subhanahu wa taala hmm? dafa xaram musique moom ci cosaan instrument musicaux rek ci cosaan dafa xaram ci cosaan ba mu des instruments musicaux yi nga xamante ne yu mel noonu da koy dégg ci nature bi comme yoo xam ne day nuroog comme wayu picc wala yi nga xamante ne day nuroog par exemple vague Euh, géej gi ak yu mel noonu yooyu yooyu xaraamuñ ci cosaan moo tax yenn xalam yi par exemple xaramuñ ci cosaan ak euh, comme piano yi wala yooyu ci cosaan lañ wax mais composition biñ ciy def dana mën na tax mu xaraam ba noppi xaraamuñ ci cosaan mooy ci koo xamante ne àggul niveau parce que dafa am loo xamante ne il faut mu ñu préciser ko mooy koo xamante na aarif billah la loolu lu am solo la mooy aarif billah moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam yi nga xamante ne dañuy wax ne tëgg nañ ci kanamam def nañ ci mu yëpp ci côté boobu lañ ko yóbbu mooy ne moom maanaam niveau bi mu yeggoon la moom sallallahu alayhi loolu moom moo tax mu daganoon ci moom ba pare tamit moo tax d'ailleurs loolu moom moo tax euh, euh, كان مصحح للصحة لسواي إمام الخطابي ci maalim sunan rahimahullah daf ni zahir bi mooy ne loolu jagle yenent bi la sallallahu alayhi wa sallam le fait que ñuy tëgg affaire boobu ci kanamam ñu kii dégg nga mais yooyu du ay sabar comme nii moo tax tamit ñuy daganal yenn instruments musicaux yi ci mooy comme yi ma leen wax exemple yooyu nga xam ne du fort trop du nekk yu yëngatu di indi ay fecc yu jaxasoo góor yi jigéen ñi yooyu yëpp du ko indi loolu ñu daganal ko par exemple ci maanaam ay céet ak jamono yi nga xamante ne ak euh, ak mbégte dafa am yu mel noonu mais dagana luñ ko ci lu ñu joyal du dee dañ koy daganal rek tout le temps tout le temps tout loolu mu leer euh, li aju ci aarif yi nag loolu beneen affaire la boo xam ne incha allah amaan na bu ci jotaay yu gën a askanonte dinañ ko ci mën a tudd waaye daal tënk gi mooy ne comme li Seex Ahmed Tijaani radiyallahu anhu wax mooy aarifu billah moom instruments musicaux yooyu noonu mooy comme yi ñu tudd nga xamante ne dañoo am ay son yu ko nuru ci biir nature bi yooyu noonu dagan nañ bu ñu daganee ci moom euh, ci mais aarif bi su condition moom lor yi ciy juddoo mu mën koo dindi benn ñaareel ba mooy taalibe bi moom ci boppam mu mën koo jariñ ci leer yi tukkee ci loolu mu mën ko jariñ ñi taalibe bi et cetera loolu nag bu maanaam ba de telle sorte parce que taalibe boobu bu sëriñ boobu génnee àdduna dootul daganati ci moom loolu la Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu wax euh, nag nga taxaw ne waaw man bu may déglu musique sama xol day fii sama xel day dellu ci yàlla en réalité loolu comme li Cheikh Abdou Aziz Dabakh radiyallahu anhu mooy sa ruux moo koy def maanaam sa ruux mooy def soo nekkee di déglu comme par exemple yu mel noonu Euh, sa ruux mooy rejeter affaire bi maanaam mooy genre fippu parce que sa bakkan day commencer am doole sa ruux bi muy fippu di la fàttali yàlla naan la delul ci yàlla te nga bàyyi yi maanaam moo tax ngay yëg ne ngay foog ne yow musique bi ci boppam moo lay fàttali yàlla moo tax nit ki day dem ba jekki-jekki xol bi wow comme ni Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wax ne euh, al ghina tumbitu nifaq tumbitu nifaq fil qalbi kama yumbitul ma al baqal nifaq manam way musique yi dañuy Euh, rey xol dañuy dañuy jëmbat xol dañuy jëmbat naafeq ci xol comme li nga xamante ne noonu la ndox di jëmbatee li nga xamante ne moom mooy ak ñaam bi donc loolu benn lënt beneen mbir la boo xamante ne mat naa bàyyi xel beneen mbir bi nga xamante ne mat naa bàyyi xel ci xalis bi mooy masxu bi maanaam mooy le fait que ci xeet bi nekk am ay nit ñoo xamante ne dañ leen di masxu maanaam mooy dañ leen di soppi parce que dañ ni loolu du am ci suñu xeet bi dëgg la du am ci suñu xeet bi généralement c'est-à-dire que du ñu jël mboo xeet bi yëpp soppi leen golo wala yooyu comme niñ ko waxee woon yahuud ya kuunu qiradatan xaasi'iina maanaam jël ab dëkk lu ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñu nekkoon foofu yëpp ñu ne leen Eh, ñu yónni yenente alayhi salaatu salaam ci ñoom ba pare ne leen kuunu qiradatan xaas nekk leen ay golo acca wala def leen ay mbaam xuux ak maanaam ma màggat yi mag yi mag yi mbaam lañ def jeunes yi ñu def ay golo loolu par exemple loolu du du du am ci xeet bi ci anam googu mais lii loolu dàqontewul ak particulièrement mu am ñoo xamante ne dañuy nekk di musique di fecc di woy di sol yére yoo xamante ne daganut di naan sàngara mu tasaaroo ci seen biir ba pare du ñu dimbali pauvre yi yàlla jël leen ñoom soppi leen ay mbaam xuux ak ay ay ay golo loolu moom jombut ki noonu mu am beneen mbir boo xam ne mën naa bàyyi xel mooy léeg-léeg sans borom subhaanahu wa ta'aala du ko def nit ki ci jëmmi boppam mu soppi ko golo ak mbaam xuux waaye xol bi lay jël wëlbati ko def ko xolu golo ak xolu mbaam xuux mboolem jikko ñaaw yi mu def ko ci moom comme li Sufyaan ibnu Uyayna rahimahullahu ma min dabbatin fil ardi illaa umam hmm? wala ta'irin yatiru bi janahi illaa umamun amsalukum maanaam moom ni ko firee mooy xam nga ne amul benn hmm, dabba ci kaw suuf wala picc muy daw naaw ak ay laafam lu dul ay xeet la maanaam ay communauté lañ yu mel ni yéen maanaam moom euh, firi bu siiw la bu Sufyaan ibnu Uyayna rahimahullah mu ne loolu day tekki li muy tekki mooy amul nit ñi ñëpp boo leen xoolee kenn ñii dañoo yor xoolu gaynde ñii yor xoolu golo ñii yor xoolu mbaam xuux ñii yor xoolu nangam et cetera ala kulli xaal wala mooy seen jikko yi tamit da gis nit ki ñooy ko jikko yi ko boo déggee moom mbaam la rek wala kii mooy xet dëgg-dëgg yooyu lan la loolu <laughs> mooy dañ ko ndax jikko ji dafa mujj yor jikko ji maanaam xool bi et cetera yàlla nanu yàlla boole sàmm ci barke rasulullah sallallahu alayhi wa sallam liñ ci jublu woon kan ci indi ko mooy xadis bu siiw la bu borom ko xam rahmatullah alayhi di faral di joxe exemple ci xadis yoo xamante ne dafa jokk maanaam eh, eh, imaamul Buxaari rahmatullah day ñëw rek tudd lan sëriñam imaamul Buxaari rahmatullah fii kon dafa wax rek sëriñ bi nee na hmm? kon waxoon nañ ne ci kitaabul ashiba la ko indi ci buntu maa jaa fii man yastaxillul xamra wa yusammihi bi xayri ismihi maanaam li dikkee ci kuy daganal sàngara ba pare di ko tuddee ci beneen tur bu bokkut ak turam manam sangara nga nan tuddu nga nan no do façon li du sangara nangam ndax parce que sangara moy lepp lo xamne te comme li yent bi alayhi wasallam wax kullu muskirin khamr lepp lo xamne day mandilaate rek sangara la tuddu yow nak no ku mën di melal batay sangara la tuddu mu doog indi hadith bi ni te indi wul benen hadith budul hadith bi ci buntu bobu lol lan lay teki bu fekkone de dëgërul fi mom du ko indi hmm? kon lol day wane lay deug deug deug la ci buntu bi léegi nag question mooy posé wu lan mooy poussé imam al Buxaari la par exemple ci xadis bi mu daal di wax rek qaala Hisham ibnu Ammar te waxul xaddasani wala xaddasana Hisham ibnu Ammar lan moo tax booba tontu bi dañ naan la siki sàkk gi nekk ci turu saxaaba bi radiyallahu anhu maanaam ndax abu amir al ashari la wala abu malik al ashari la radiyallahu anhu moo tax borom xam ne li ñu dëgëral mooy ne abu malik al ashari la radiyallahu anhu maanaam loolu moom moo indi problème bi maanaam moom mooy li nga xamante ne moom mooy doute bi nekk bi indi nekk ci de toute façon ñoom maanaam moo tax euh, de toute façon comme niñ ko gisee woon bu fekkente ne benn waay la ci saxaaba yi radiallahu anhum moom moo wax maanaam euh, rajulun min as-saxaabi de toute façon euh, loolu amul loo xamante ne maanaam mubham la mais mubham la bo xamantene yakul dara comme ni nga xamne non lañ ko gisse imam ahmad ibn hanbal bi ko ko al asram rahmuhullah laajee gis nga lim wax niki noonu imam abu daud tam rahmuhullah taala tamit saxal nako et cetera ak te lol moy waxu borom xam-xam yi ñom ñep rahmatullah ala al jami' jamii kon imam al bukhari rahmuhullah mom وما عزا لشيخه بقال ففي الاصح حكم له اتصاله لولو موي ليغا خامتاني موم لا وخ أه. وما لها وما لها لدى سواه ضابط فتارة وصل وأخرى ساقط وما لها وما لها منام أمكو maanaam amul ñeelut ko la daa siwaaxu faf keneen ku dul moom daabitu ak takk maanaam keneen ku dul bu imaamul Buxaari raximahullah bu waxee ne xaala ah, loolu amul luñ ko mën a takke léeg-léeg mu ne xaala diw fekk taaliq la léeg-léeg mu wax ko fekk së ci sëriñam mi la bokk mu wax ko fekk muallaq la fekk maanaam kon muallaq la léeg-léeg mu wax ko fekk du muallaq ala rasiwahu daabitu mooy lu ko mën a takke règle buñ ko mën a takke imam Buxaari rahimahullah rek lañ gis ne moom am na règle bu ko takke moo tax fa léeg-léeg waslun mu nekk ak jokkoo wa uxra léeg-léeg maanaam ci yeneeni yoon saaqitu mu nekk loo xamante ne dafa rot maanaam dafa am ku rot ci diggante bi maanaam dafa am ku rot ci diggante bi léegi avant ñuy ñëw ci li Cheikh Ahmed Shakir rahimahullah wax beneen question day posé wu mooy imam Suyuti rahimahullah fii tudd na al Bukhari rahimahullah mais mu imam muslim nag xanaa moom moom moom saxeexam nag saxeexu muslim nag imam muslim rahimahullah waaw saxeexu muslim dëgg la moom en fait taaliqaat yi ñoo bari wul imam muslim rahimahullah taaliqaat yep yep yep yep yep comme ni ko imam al abu ali al ghassani rahimahullah inde ci téere bi taqyidul muhmil wa tamyiz al mushkil mom 14 taaliqaat rek la am 14 mom kon bari wul te lol al imam ibnu salah rahimahullah ci sharh siyanatu sahih muslim sharh bo mu def ci sahih muslim tamit lolou la wax ah waye dafa gëna xootalat mom mom moom mais daf ne nak mom nak setlu na waye dal gisul 14 12 la gis mom dal daf ni 12 la gis ala kulli halin bari wul du deug legi kon mom mom soxla wul yoy yooyu ah amma yenen téere yi nak moy sunan yi moy Abu Dawud at-Tirmidhi et cetera rahmatullah alayhim loolu daanaka ak musna masanid yi ak maajimi ak tere yu ko nuru yooyu moom daanaka do ci gis la mo an an do ci gis hadith bo xamantene mo an an la legi ñu xol lan la cheikh ahmed shakir rahimahullahu taala wax al cheikh ahmed shakir rahimahullahu dane al muallaq huwa ma xudifa awalu isnaadi isnaaduhi سواء كان المحذوف من الإسناد واحدا أو أكثر ويشمل ma ida xudifa al isnaadu jamia maanaam euh, cheikh ahmad shakir rahimahullah dafa ne muallaq mooy loo xamante ne dañoo xasaf isnaad bi maanaam dañ koo dindi isnaad bi ci càllale gi moo xam ki ñu dindi kenn nit rek la wala ñu ko ëpp bu boobaa day làmbaale maanaam bu fekkente ne isnaad bi lépp dañ koo dindi mu ne kama ida qaala baadu almuallifina qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam aw qaala ibnu abbas aw qaala ata mathalan fa kullu hada muallaqun li annahu xudifa al isnaadu min al muallif ila al marwi ila al marwi anhu maanaam niki noonu su fekkente ne ñiy taalif seen téere yi dañuy wax ne rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nee na wala ibnu abbas radiyallahu anhu nee na wala ata ibnu abi rabah rahmatullah alayhi nee na par exemple mu ne yëpp muallaq la ndax lan ndax dañoo dindi li nga xam ne moom mooy njaal beenu isnaad bi liko dalé ci ki nga xamantene mom moy ki bind téré bi ba ci ki ñu ko solo ci mom manam mu wa hadha an-naw'u kathirun fi sahih al-bukhari fa taratan ya'ti bihi bi sighati al-jazm nahwa qala fulan wa yu'ta hukm as-sahih li annahu jazma bi nisbatihi ila qa'ilihi fi kitabin iltazama fihi as-sihha mu ne hadith yu melni moy ta'liq lu bari la ci sahih al-bukhari léeg-léeg daf ci ñëw ci siratul jazmi maanaam ci wax joo xam ne daf ciy dogu comme bu naan diw nee na boobaa dañ koy jox àtteeg xadis bu wér ndax dafa dogu ci askanale mbir aji wax ci askanale aji wax loo xamante ne maanaam ku ko ci téere boo xam ne daf caa saxal ci boppam daf ci indi rigueur ci boppam ci ne lii dama ciy obligé sama bopp ci ne xadis bu wér laa ciy indi deng nga maanaam lu wér rek la ci indi muna wataratan wataaratan yati bi sirati tamrit leg mu indi ko ci siratu tamrit manam wax wax jo xamantene taxut ñu xam kan la naxu manam manam manam taxu ko dëgër taxul mom jëlul ben responsabilité ci wax ji dañ rek nee nañ comme par exemple mu ne yuskaru wa yox kaa wa yuqaalu yuskaru tudd nañ wa yox net net nañ de wa yuqalu ah nee nañ de hmm? mo tax waxu borom xam comme niñ ko junjé ci jotay bi jotay yi wessu dafa mata baye xal ni ni waxe rek ñom do deg borom xam-xam buy wax lu ko wóorul ba pare daal di wax affirmer déedéet suy wax lu ko wóorul danaan nee ah netali nañ et cetera mu fa jaa hakaza lam yahkam lahu bi sihhati walakin wuruduhu fi ahadi sahihayn yaj'al lahu aslan fala yuxkamu alayhi bil ash shadid mu su fekkente nak hadith bi non la mel ñëwé ni deful wax ni maanaam déful àtte ne xadis boobu wér na waaye nag le fait que mu rot ci ñaar ci benn ci ñaar saxe yi day def day tax ñu xam ne ndegete am na cosaan wax ji kon bu boobaa duñu ko àttee ci ne maanaam mooy comme li imam As-Suyuti wax rahimahullah laa wala tuuhinhu maanaam bul ko jox ak doyadi gu rëy maanaam ne xadis bi daal dafa doyadi lool lool lool déedéet mu ne wa amma yar wi ashaabul kutub allati la taltazimu sixat bi geyri isnaadin falaa yuxkamu lahu bi sixat sawaun a jaa bi sighati al-jazmi am jaa bi ghayriha bal yufhasu an aw awwala mu ne euh, su fekkente ne dafa maanaam xadis mu àllaq yeneeni boroomi téere yi nga xamante ne ñoom charte luñ ci seen bopp ne fokk dañu indi xadis bu wér ci seen téere yi ñu indi xadis bu mu àllaq ci lu maanaam xadis wala wax noonu rek te indiwuñ ko càllale boobaa kenn du àttee ni xadis bi wér na moo xam ñëw na ci siratul jazmi maanaam ne dañoo dogg wala boog ci beneen la mooy siratu tamrit maanaam mooy wax ko wax joo xamante ne daal engagé wul mu ne duñu dogg ci ne wér na dañuy xool hadith bi jim ko xol ba xam dinañ ko gis ci yeneeni cyallale ak cyallale yoy ñu doga a wu ci lola mune ne waalam anna al bukhari kaseeran ma yadhkuru hadithan an shuyukhihi bi sighati taaliqi taliq fa yaqulu qala affan aw qala al-qanabi fa hadha min al bukhari mahmulun ala al ittisal li anna hukmuhu hukm al anana li thubut al liqaai bayna al bukhari wa bayna shaykhihi wa li anna al bukhari laysa mudallisa manam xamal ne imaam al-Buxaari rahimahullah lu bari la loo xamante ne dafay faral di tudd ay xadis yoo xam ne daf koy jëlee ci ay ci maanaam loo xam ne daf koy daf dafay def taaliq day siratu taaliq maanaam kon mu naan par exemple mu mel ni taa maanaam forme bu ñuy wax ci taaliq maanaam forme boobu lay utiliser maanaam comme par exemple danaan qaala Affaan a nee neena wala mu ne qaala al-Qa'nabi hmm, hmm, noom al-Qa'nabi nee na rahimahullah yooyu par exemple dafa bari lu mu koy indi mu ne te lii ci imaamul Buxaari rahimahullah dañ koy jàppe ne maanaam dafa jokkoo dafa jokkaloo ndax lan ndax àtte mook àtte xadis boo xam ne an ana la comme niñ ci ñëw incha allah moom parce que mooy bunt bi ci tegu ci bunt bii ñu ne incha allah al mu an an maanaam kon loolu la maanaam àtte boobu rek lay yor ne jël nañ ci ndax lan ndax ne imaamul Buxaari ak sëriñ boobu sax na ne daje nañ benn ñaareel bi mooy imaam al Buxaari rahimahullah moom du nekk koy def tadlis duy netali ci serignam lu mu déggewul ci moom mu ne wa amma xayrul buxaari fa laysa li'ilmihi dabitun ma'rufun fi li li li ilmihi daabitun maarufun fi dalika فلا يحكم له بالاتصال بل يفحص عنه من الطرق الأخرى ويحكم له بما يظهر من صحة أو ضعف مانم أما كنين كل الإمام البخاري لعمله لأمانة manam ken du amuñu maanaam waaw fa lay sale almia dabita maaruf fi zalik maanaam amuñu pour xam mbir moom loo xamante ne maanaam règle la boo xamante ne bu ñu xam la pour mën koo takk kon boobaa du ñu àttee ci jokkaloo xadis bi au contraire li ñu mën a def mooy dañuy tënk maanaam mooy dañuy luññutu li nga xamante ne moom moo aju ci wàllu xadis boobu ci yoonu xadis bi ci càllale yi ci yeneeni yoon ba pare ñu daal di àtte nag ci li nga xamante ne moom mooy liy feeñ bu jamono joojee ci ndax xadis bi maanaam wér na wala boog nekkul loo xamante ne euh, wala boog loo xamante ne euh, wérul kon lii maanaam mooy lii Cheikh Ahmad Shakir rahimahullah li nga xamante ne maanaam moom la wax ci ci ci ci ci ci ci hmm, ci taxqiq maanaam bi nga xamante ne moom la def ci wàllu gi am na nag masala boo xamante ne bu am solo la amoon na boo xamante ne fàtte naa sama xel mi ngi ci woon bi muy wax affaire Mou'ane Hann bi fii nii bi may wax ci affaireu ta'liq bi ci bi may lire li Cheikh Ahmed Shakir wax rahimahullah waaye ala kul hal man manam dama ko fatte wat legui ni de toute façon euh ala kul hal li ëpp solo ci mbir mi. wax nañ ko walillahi alhamd wal minna legi im ziyadat yi nga xamantene nak mom mo am ci buntu bi moy bayit bi bu mujju bi wama la hala laha lada siwaahu daabitu fataratan wasmun wa ukhra saqitu lol mom moy li nga xamantene mom moy mooy yi nga xamantene ñom ñu am ci alfiyat al suyuti te ñëw ci alfiyat al hafiz al iraqi rahmatullahi alayhima ala kulli halin kon lol mom moy li nga xamantene mom mo aju won ci muallaq